Jumbo! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همجر الشياطين وأعوذ بك رب يحضون بسم الله يا حبيبي قلي فارقت ما لم يضلي بكلي بركة برمتبا عبد الخديم سي عمدو بامبا مبكي جولي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي فيك بسم الله خمني بسم الله واجل الله بسم الله خمني سلمي بي سامبو موشي نيانال ويجرم sëñ abdu Karim Samb doonoon muritub Serigne Touba bu ñëpp xamoon ci dëkk bi di Thiès waaye nag mu ciy sargal ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Touré mi fi nekkal Serigne tubaa di jàmbaari lislaam di jàmbaari yoonu murit di ko ñëpp xam ci liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul bis bi nag ni mu koy defee mooy nii ñu ngi déparé léegi ci jàkkay murit fas yéenee dox jëm fii ci rond-point Serigne Massamba mbake bu ñu si bàyyi ko nag wéy ba àgg fa ñuy wax place de France muy euh, digg dëkk ba foofu nag ñu war a amale jotaay bi nga xam ni mooy jotaay bu waxtaan wi jëm ci bis bi ak xasida yi ak lépp loo xam ni danañ ko amal ci bis bi kon nag ñu ngi fii tey gis ngeen waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni euh, di koo xam ne ñu ngi koy sant bu baax baax ci yar gi mu yar ñi mu àndal ci sëñ Touba gëm na leen sëñ Touba bëgg na leen sëñ Touba tàggal leen ci liggéeyal sëñ Touba moo fi yebal ak njabootam wax nañ ni taw doom borom baax Mbacké teew na fi gis ngeen ak njabootam noonu ñoo nekk ci ginnaaw di bàkk sëriñ Touba di ko sant di wax ni Bamba doy na làquwaay doy na wéeruwaay tamit lu wér kon lañu bayyi leen ngeen dugg ci biir xol liggéey bi bu ko ni ne tour di jox kaddu nga xamni moy seumur Bay Sàmb mu wax li nga xamni moy mooy ci bis bi tay kon bu ko defé kon ñu bayyi kon ñu dugg ci biir sëriñ Modou May Sàmb ñu ngi lay siaré ginaaw bis bi nga xamni yaang ci sant sa wajur sëñ Abdou Karim Sàmb diko ci ñaanal waye di ci sargal seigne Saliou Touré waye di ci sant ci Amadou Bamba khadim rasoul ñu gis sëñ Modou Kara Mbacké ni la defal moy yebal fi mbolo mu takku ñu àndaw ci liggéey bi ala waxtu yi looy yëg ak loy wax ak mouride yi waaw yëg gi daal moo sant bu wér nag santati te duñ jog di sant ki di Cheikh Amadou Bamba khadim rasoul ndax tay ji tay sama wajur wa adil, ko fàtte budé dee cërub gànnaar moo andil budé dee ci cërub ma andil mo nekkoon Ilimani Thiès waye lolou lepp duko jël tek sama loxo ma and ko nak ak Serigne Saliou Touré mu and ak man jël molo asabul jannati tek ci sama loxo ñu and di liggéey Serigne Saliou ba kon Serigne Saliou Touré yalla na fi yag lolou te mo and ak wér waye nak Cheikh amadou karam Mbacké Noreyni sagal na ma lool bis bi bi dama ni lepp maa koy def yebal mbooloo ñu ànd ak man borom baax jóge na Daaru Muti mi ngi ñëw ajaratu Ndey Buso mu soxna May Galas mi ngi ñëw woo na ma it nag ni ma mbooleem mbooloo yi ma am yëpp nañ génn nañu ma bàyyi xel nag ndax mën na maa bàyyi ko fu ne kon loolu it ñu koy waajal waaye nag maa ngi sant nag taalibe yëpp nag rawatina nag kuréelu jëy sun bi jàng xasida maa ngi sant nag kuréel bi nga xamante ni ñoom ñooy dox première safar di ko màggale Serigne Touba waaye maa ngi sant bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni jàpp nañ ñoom ñëpp jàpp nañ ci bis bi ba bis bi tege nii waa daayira waa Masaalikul Jinaan ajaratu Gàmmu Jóob jiite leen ñëw nañu bàyyi ko ci jëwriñ Mbàkke yu fay di sant bu baax nag mbooleem jàngkati xasida yi place su Cheikh Massamba Mbàkke euh, sëñ Abdou Karim 1907 la toppoon sëñ Massamba ànd ak moom ba yàlla dogal sëñ Massamba jëbal ko guerre mu dem geer guerre 14 bi mu ñibbisee sëñ Massamba ko indi fii Thiès 1919 mu ne fi ba 73 kon tay ñi ngi ci placeu Cheikh massa Mbacké di nuyu nak bu baax Serigne Mamor mu Serigne mak massa Mbacké diko ñaanal mu yag fi lol te mo and ak wër di and ak bokki talibé yépp nak ak bokki jurit yi waaye nak xarit ak wëllëre yi ma ngi leen di siyaare bu baax ma ngi ñaanal nak bu baaxa baax ñi nga xamanteni ni dañoo jàpp ci biir ku melni euh, Mamadou Lamine massali taxawayam rafet na jàpp na ci biir japp na ci biti ko ak man kon bàyyiwuma gor wu ma jigéen ma mag wu bàyyiwuma ndaw bépp taalibe bépp mbokk koo xamante ni ci sëñ Abdou Karim nga aju li bàyyi ko ci njabootu Cheikh Cheikh Mbacké bàyyi ko ci njabootu Alaaji Sowru bàyyi ko ci njabootu Mour Fall bàyyi ko ci njabootu euh, Joojo Samb ak Fat Samb ak Mbaalo Samb ñoom ñëpp maa ngi leen di sargal maa ngi sargal nag doom yi ak xarit yeeg wala rëy bàyyiwuma kenn maa ngi ñaan nag yàlla dimbali nu ànd ak tawféex ba li nu yéene lépp ñu def ko ci bis mi ci barke Serigne Touba yàlla bu ko dara gàllankoor tey daal bég naa Alioune maa ngi la xamal ne sama xol sedd na am na loolu sax mënatuma koo wax xanaa dama koy feeñal rek waaye lii tey koo ko am ci dëkk sëñ Massamba ngi nii sama sëriñu Baye ngook kon lii tey ku ko am war ngaa sant na cib dëkk taaliba yëpp gën bokk yëpp gën naan la na moon nañ la foo nekkoon géey ba lu ma ci jëlee yàlla naa ko bokk ak ñoom maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp yàgg ànd ak Serigne Saliou Touré la Serigne Saliou Touré wóolu woon ko itam def ko muy jëwrin waaye itam mu nekkoon fële ca Ndakaaru ànd ak Serigne Mbacke fay jëwrin ci liggéey bu tedd boobu nga xam ne ñoo ko doon liggéey Sëriñ Tuubaa ci jumaay Masaalikul Jinaan kon tey bis baa ngi noonu ñu ànd ak Thiès TV ngir wan leen lépp loo xam ne moo fi tukkee kon ñu bàyyi leen ngeen ànd ak sëñ Lamine suñu caméraman bu xereñ bi macha allah mu wan leen li nga xam ne moo fi tukkee ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ba ci kanam ak jàmm ñoo ko déggandoo yéen mbokki taalibe yi képp koo xam ni gis na lii déglu ko dana xam ni Serigne Touba ab liggéeyam waxtu nekk day gën di kawe dafa waxoon ni qultu wa aya mis darad umuusi wa fustu bil xaamuusi bil xaamuusi sama mbir lu mu jëñëw mooy gën a kawe mooy gën a màgg mooy gën a yéeme ndax yàlla da koo gërëm ngërëm loo xam ni kenn musta xam ku ko yàlla gërëm ku dul moom loolu ñu waxoon léegi muy bamba doon sëkk làquwaay ak wéeruwaay loolu moom moo ko waxal boppam nee na amarani rabbi bi an usarriha bihi bi annani malazun waximal mafsahu wa man arada al xayra fi kintayi daarini fa yalus bihi Sëriñ Tuubaa nee na yàlla ma xamal ne ma xamalal mindee fii nii yow ab wéeruwaay nga ab làquwaay nga Sëriñ Tuubaa wax ni kon képp koo xam ne nam ngeen yiwu àdduna ak wa àllaaxira na nga dikk ayu ci man kon nag loolu mooy li nga xam ne lu wér la lu dëggu la loo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko waxal boppam moom làquwaay la wéeruwaay la tey làquwaay la boo xam ne ku làq ci moom mucc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 malayka yi sant ko jinne yeeg awliya ullahi yëpp sant ko sëñ Tuubaa nee na rabbi shakarani rabbi anda jundi ramu ziyadi mahamani min hindi sëñ Tuubaa nee na radiya anillahu wa rasulu wa ahlu badri wataani sulu sëñ Tuubaa nee na yàlla gërëm na ko wa ahlu badri gërëm na ko yonent bi gërëm na ko sëñ Tuubaa nee na bépp xulafaaw arbaa gërëm na muy ñeenti saaba yu mag yi ko waxee ci mbindam ñëpp xam ko radiya ani sibtuhu radiya ani sibtuhu radi an yi surtout abou hasan radi an yi xulafaalu arbaa xusturu dal ko tënkee ne am nga ci yàlla dara xam nga sëñ tubaa gërëm nga sëñ tubaa ndax yàllaa ko gërëm moom mu gërëmaale la kon loolu moo tax cant kaw la jëkkee doog wàcc tey def na lu solo dox bii nag dafa wax ni sëñ saa Touré moo daan doxee jàkkee murit di dem fii di finance muy muy muy barab boo xam sëñ tubaa dafa jaar am fa ñaari fan ci niñ ko waxee mu daan doxee fii jàkkee murit daan ànd ak murid yi di fa dem di ko màggal moo tax tey ji mu boole ci lii nag ngir sàngalee ko Serigne Saliou Touré mi nga xam ni xamal nañu Serigne Touba wan nañu Serigne Touba Serigne Touba amu dara loo xam ni da cee cof lépp Serigne Touba jàpp na ko nangu koo liggéeyal ba noppi jàngal nu liggéeyal Serigne Touba kon moom itam yàlla na fi yàgg loolu loolu mooy jotaay bi ngeen gis waa kër Cheikh Amadou Karam Mbacké nóoru yi nag gis ngeen ñoom ay soldats yi Serigne lañu ni ma koy waxee rek seen kilifa dafa leen a yar ci bëgg Serigne tubaa yar leen ci dund Serigne Touba yar leen ci nangul liggéey Serigne Touba tàng na trois heures fekk na ñëpp tak seen ndigg taxaw buntu jàkkaay murit fii ñu li ñuy def nii mën nañ koo dëkkee faane ko du ñu yokki du ñu tay loolu moo am solo ay nit bi nga la toppee ngir sëñ Touba dina leen wan sëñ Touba leen sëñ Touba ñoom ñi nag seen dund gépp mooy xam sëñ Touba bëgg sëñ Touba di wut sëñ Touba ku leen woo ci sëñ Touba ñu wuyu xamee kenn xamee wuñu ñenn sëñ Touba rek la ñuy teel kon Sëñ Modou Kara Mbacké jërëjëf yàlla nga fi yàgg lool ci ànd ak wér ak mboolem kilifa yi diine yi Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam nag mooy kilifa gi jiite yow itam mate ko sëkk di sunu sak di sunu tiitar di sakku islam bépp yalla fi yag lool te wér kon bu ko defee kaddu yaa nonu ñu bayil leen batay ngeen wéy di teewlu li nga xani moy mooy jotaay bi wa rahmatulahi taala wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi ñuy sant bi Cheikh Bamba tay ngir mo taxaw julli won fa ndar ba sañ ko tay alhamdulillahi ñuy sant bi Cheikh Bamba tay ngir moo taxaw julli fa ndar bañ ko tey rakkaam ya mooy soweta ci ñun mooy dox ba tey màggal ko moo di li ci ñun di ko tey biro bee fa ndar moo te mbër fa jaar ba wey ku ci dul sëriñ tuuba keroog si ñëwoon nga wey soldaar ak waa tribunal keroog ñëpp kañu naan borom ndar ñëw taxaw di ku yàlla jay ma nga mer tanaa leen mer de may seen yàlla tey kum woo keroog président nga wax mbaanee nga wey mu ni leen baleel islaam mu fay bu mu weesu tey tes jàkka yëg seen daa bu ma kenn lay ku ni noo ma ku ni wii ma fay ko mu daal xëy islaam di jooy foofee ba xëy doon waaja wey Cheikh Bamba moo gantal keroog yenu yen ba wey bim dellu seet kenn jàmbatul boobee ba Cheikh Bamba moo gàntal keroog yanu yan ba wey bim dellu see kenn jàmbatul boobee ba tey dugoon ak Sëriñ Tuuba danuy nasaraanu tey xawlan wa fi'lan moo waral nuy Bamba tey dugoon ak Sëriñ Tuuba ba tey julli kaay fay kon sant war woote tey Cheikh Bamba tey ku fi xam keneen ku fi ñëw te jaar fa mu jaar ba wey ku ni mel amul feeñul ci ñi du ca gaaña wey bim tàmbalee bañ yaa ngi reenaa lii wey ku ko njort woon daa reere Tuubaa ngi tey tey ña ko réere woon di ko méngaleeg ulamaa ya wey ba ñu leen jëlee teye leen fa ndar moom rekk wey yam def gabon xasaayu wey nasaraan ya bañ mbooloo taxaw waxuma di way riddal ilaahu alal xadim di ki yàlla may jërëjëf Sëriñ Tuubaa sa jëf ko yàlla fayin bim dellu see ku yaa nga fa sampe tey ñuy sant rek ku xew ci diine tey bim dellu see ku yaa nga fa sampe tey ñuy sant rek ku xew ci diine tey riddat ilaa woom alal xadim di ki yàlla may jërëjëf Sëriñ Tuuba sa jëm na ko yàlla fay ridal riddal ala al qadim dik yàlla may jërëjëf Sëriñ Tuuba sa jëm na ko yàlla fay addiya borom Tuuba khadim Rasuul may ñaan kep ko nekk suñu borom fas ay aju saar ci barkeb Sëriñ Tuuba xasida حبلي كوني بذل كل من يتوب ولسواه يا أب مها القلوب حبلي كوني بذر كل من يتوب ولسواه يا أب مها القلوب الحمد لله الذي يجاسي من أحسن بخير والمفاسي وصلوات على الكرام والآل وصاب والخدام وإني يوم صور داي وسوء محابة لهؤلاء لساك قلت طالبا من الكريم جساؤه بجايس الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل على خير الورى محمد وآلي مع أصحاب واغفر سنوبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا مهين وقد هوائج الذين الضامو في قلمتي وهب لهم ما راموا وقد حوائج الذين داموا في قمتي لهم ما راموا وارسقهم الإيمان والإسلام والفطن والإحسان والاستسلام وجاسم هني بالغفران وبالكرامات وبالرلوان واجسبوا إلى الهدى وخير واسرموا هني الردى والدير واغفر له كل لقا وسلبيا وهب له مهن صلاح القلب وكن معينهم على الأمور الدين والدنيا مددهم ولا تواقسم بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل عنهم دنسا وقطعا وهب له سهادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى طاحات بالعلم والهمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمديا وحق ذار رمضان الأمشدي وحق آلي وصحبه جميعا وحق كل ذي عبادة مطيعا وصلي عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت قمة سلما إلى سعادة ولنجاة وهلا فاس الذين سهدوا بالخير وباء من لم يصدوا بدير فاس الذين سهدوا بالخير